yéen a ngi teewlu info 221 dañuy àddu wax nag mbokk yi ci mbirum Cheikh Bara Ndiaye moom mi li nga xamante ne jamono ji ay njabootam nag ñi ngi xam ne euh, wérgu yaramam dafa gën di daga tembe maanaam dafa feebar lool fukki fan nag ginnaaw bi nga xamante ni jot na ko passé ca pavillon spécial bañ ko yóbboon ginnaaw jafe-jafe wérgu yaram ba mu amoon moom Cheikh Bara Ndiaye mi la ñu ngi ko teg loxo juróomi fan ci weeru juin ñii di agent bu commissariat central bu Rufisque nag ñoo daal di ànd ak ñii di sûreté urbaine fekk si ko foofee daal di ko jël moom mu nekk ab chroniqueur foofee yi ñu ngi ko doon toppee ci lu jëm ci appel à l'insurrection appel waaye tamit acte manœuvre ak loo xamante ni daal mën na indi fitna ak ñàkk kaaraange ci réew mi moom mi li sax ñu ngi ko doon tuumal ne bokk na ci ñu dugal seeni loxo ci fitna yi nga xam ne amoon na fi Dakar bu lu bare ci askan wi am seen yàqu-yàqu rawatina ca Touba mbir moom amoon benn fan ñaari fan ci weeru juin yi ginnaaw naka ba ñu daane Ousmane Sonko ñaari atu jëm rek ci mbirum suite ba bi nga xam ne Adji Sarr mi ngi ko doon tuumal lu jëm ci viol ak menace de mort juróomi fan ci weeru juin gannaaw bi nga xamante ne daal di nañ ko teg loxo Cheikh Bara Ndiaye daal di fa tàmbali lu jëm ci xiifal xiifal boobee sax dugal ko ci ab guuta ndaxte moo taxoon nag mu jëf mu tàmbali woon di am ay jafe-jafe ci wàllu wérgu yaramam taxoon na sax procès bi nga xamante ne ñu ngi ko doon amal foofee ca tribunal bu Ndakaaru juge bi daf ko mujj ajandi ba beneen bëccëg jamono ji nag njabootam ñoo daal di tiit jaaxle ci jafe yi nga xamante ne am na ko ci wérgu yaramam ndaxte garab yi nga xamante ne moom la doon faral di jël sax dañ ko ko tere jot ko foofee ca kaso ba mu nekk jamono ji nag njabootam itam ngi sàkk nguur gi waaye tamit képp koo xam ne kilifa diine nga te mun nga ci àddu ngir rek ñu bàyyi ko waaye itam ñu bàyyi rek ñu daal di ko indi ab garabam mu mun ko jël na mu waree ngir rek wér yaram daal di àddu kàddu yi nag ab frère moo daal di si àddu di ko ñax nguurum Sénégal rawatina nag kilifa diine ñu amal si ab médiation ndax kii di Cheikh Bara Ndiaye daal di dellu si nag foofee ci këram jamono ji nga xamante ne jabaram bu yoo ci kati nag daal dina sax am doom bu jigéen mu nekk ñaareelu joomam ci ginnaawam la mbégte bi daal di am